asalaamualeykum wa rahmatulah aduna nder képp ñi nga xam ne ñooy seetaan fii si Sahel Network TV ñu leen jaajëfal rek fii si waxtaani mbéda bi Word on the Street tey ñu ngi fii nii tey ñëw si beachside bi ñoo seet si suma morom yi ndongo yi suma moroom yi yuut si ñu leen wax na leen kal leen ko foofu noonu li ngeen fi dégg rek di si man si gars yi la ñi nga xam ne ñu ngi jëflanteel seen problème ne ñu tuddee ko Word on the Street muy waxtaani mbéda bi fii Sahel Network TV. waaw laay bij bi ni ko dege rek non la demé bij bi mom yaga nañ sona waaw at yu bari since time yi Jawara time ya jame Jammeh yëpp bij bi doxut dara doxut you know hamga because bij bi yaaxu da fi am gali ya yaa ngi ta taxaw because moom dafa doon try way gali ken ni ñemeñu ko jël because ku ko jël nga am problème da nga dem sax yi mune la da nga am te fekk amuloo nga ñëw gàddu ci problème doo ko def bij bi gaangi ni da fa nahari ona sangal mo ni kanire nga gis ñu di am fi lu nga lolu ak lolu ba pare gaay dañ fi nek rek di lay seen suñu geej gi wata ñun ñu ngi war am trola ñu ngi wara lobby i comme ni fi yaa def mom try na sa at least try na waaye yaaxa na ko because dafa waro gal gal yaa ngi ni ci biti man amon na fi gal go xamne daf doon local local fishing waaye da nga gis ne you know am nga Chinese ci ñoo dem dog suma mbal mi understand nga Chinese dog suma mbal mi ma dox be sona pour gaay compenser ma fisheries Why you know xam nga that was about four years five years back understand nga ma ne ba léegi jotuma dara dama mujjee discourage sa bàyyi noonu understand nga fi mu nekk maa handicap understand nga damaa ñëw ci picc bi rek ay yeneen yi maa suma you're yi maa you're nga li ma ne gaal yi gaal yi dañoo ñëw fii gaal yu mag yi suñu registré dem ci géej dog mbaali mool dog mbaali nappakat yi suñu local fishermen local fishermen are laay ñoo You war a jaay jën suñ jabar yi jënd ko ba pare ñu njëriñoo ko waaye local fishermen You suñ dogee seen mbaal yi ah ñana laa jaay jën te ñii suñ jëlee seen jën dañ ko export yóbbu ko Europe understand nga soo ñun dañoo dañoo dañoo remain handicap understand nga li ma ni soo li lay suñ problème gars yi war nañoo dimbale jóg ci géej gi bi ko géej gi dafa am ñu ko daan dem di monito ji xam nga comme anaka neebi yi waaye you know da ngaa waaru because géej gi Chinese dañoo ñëw fii dog suñ baal mu am yeneen nappkat yoo xam ne dañoo ñëw di dugga suñ géej gi di fi sàcca si suñ jën yaa ngi nii gars yi ñëw suñu registré net bi dem rabe nappee beneen net understand nga li ma nii suñu jëri lañ man dama gis dama dem sii ah dama dem si ci Chine si ma gis dañoo def traité suñu suñ yi suñu jën yi sax dañ ko dañ dañoo nappa ba pare sànni ko jën yu ndaw yi nga wax ne dañ war a dunda yëpp dañ ko dee tuur understand nga jën dee understand nga suñu géej gi yaaxu loolu mooy yaaxa géej loolu tax Mauritanie nanguñ kenn foyatee seen géej gi understand nga li ma nii ñaata gan ñoo fi nekk tey ñoo xam ne ñii mel am nañ lay o amuñ lay sin ñu ngeen nappa suñu géej gi xam nga mani ni ni liggéey bi war a doxee dohe doxewul noonu on a so soo dama ñaan nguur gi pour ñu taxaw ci lii gis ne on a man mi wax ni ah su ma ooyee mun naa koo point su bari on a li mani wax ni waaw géej gi mu ngi nii li fii suñu ressources la fii rek mun na dundal dëkk bi on a li mani waaye mënuñ ko am ñun amuñ ice plan on a li mani ni ñun waroon nañoo am jën comme ni gars yi jógee fii di yóbbu seen dëkk di ñëw registre seen gaal ci am Jin ñun waral nañu mëna dem lobby ay gal understand nga li wala ñu def artisanal fishing nga gis support from fisheries understand nga li ma nii ñu dimbalé yuut ci su ko defee yuut si tamit mëna am ci luñ jàppa understand nga way ci gaali Chinese rek lañu dem understand nga li ma nii ñun amuñ benn gaal understand nga li ma Chinese ñom lu leen neex lañu def suñu geej gi dama register suma suma jin amin dama register suma suma gal so lu ma neex lay def ci geej gi understand nga li ma nii géej gi suñ ressources dañ ko wara sama. waye kan nañu war nañoo jóg it's high time pour ak ñu government bi pour mu dimbale ñu ñu seet géej gi def ci loo xam ne lii moo war ñu def ko ci pour ñu mun a am ñun li ñu war a am ci géej gi pour ñu dëkk bi développement bi tamit jóge ci géej gi waaye am na dëkk yoo xam ne soo fa demee géej seen géej gi seen ressources duñ ko dee caaxaane Mauritanie ngi nii caaxaanuñ seen géej gi seen neighboring country Sénégal caaxaan dañ leen dee stop dafa fari am shooting sax ñuy rey ay mool understand because they understand nga te licence lo, nga ñëw di sàcca ñun dafa am ñom ni dañu ñu di sàcca fi di gëna mané ci gal yi gaal goo gal lañ fay dugal si doo dee mun xam sax understand nga Chinese ci dal ñoo fi register mostly ñoo de ya xam local fisherman yi dañu dem during the night ñuy napa gis ya nga seet sambal ñu buub sambal katapela ba jël ko mas ko xam nga kooku yaaxal nañ la te ya nga am ya nga spend 100 and something 100 and 200 two hundred something ci sambal. understand li ma ne soo kana laa compensé man Sanyang sax dama fa amoon yenn gars oo xam ne tamit suma friends lañ ñun ñoo nekkoon ci fishing ground understand nga ñoom tam di same thing. seen mbaal yi dañ ko toppa toppa ba dañ mujjee discourage bàyyi noonu because who to pay them no Chinese yi kan ban kan ban Chinese nga identify kana yéen a nangoo ne moo yaaxa mbaal mi nobody kan ngaa fekk ci géej gi nga ne ko yaa yaa mbaal mi waaye ñoom dañ dee xam ceyndi ci am na ñoo xam ne dañ lokkali dañ dee ceyndi ci yaaka seen mbaal mi sax understand most of them they don't know because dañoo seet seen mbaal yi gaal yoo ne mbaal lañ ko fa def ay two three days dem jukki ko daal li ma mun a xam ne su ma yéena su ma friends yoo xam ne ñun ñëpp a doon job together seen mbaal dog nañ ko understand nga toppa nañ ko duñu leen appointment amun dara ci sen sen bal yoy be loolu lañ ko logé ban Chinese moy wax ne moko dok du am ben identify identify captain ok identify trop la bo ne bi da ne mo dok bal mi understand nga dem ma ne soo da nga dem pour ndimbal pour japp dimbalé la pour gaay compenser compensate la wala lenen yu do nga det do ko mëna am on understand nga dem ma ne soo nañ gestuwaat li moy géej gi géej gi mom am gal ya ya ngi ni da ko fi defoon way boy ñëmé ñi ko jël understand nga dem ma because ken du jël alali gaynde understand nga dem ma ne alali bukki understand nga li mooy nga jël ko ëllëg nga dem mu ne da am te amul gaali sa amul machine understand nga moom lii la pare woon a def pour booy di ci dem man am knowledge of this understand nga ñun ñun ñu nekk ci taati pere bi understand nga li mooy nii waaw so man am naa knowledge ci lii affaire yi gaali ñun ñoo jikko jikkoon ne nobody bu mu am affaire interfere ci affaire yi gaali jaabe ji because soo ko jëlee am nga problème understand nga amaan na nga dem géej mu ñëw ne la da nga jaay jinami wala da nga jaar nii ak jinami understand nga so ku mel noonu doo mën a jël alalam understand nga yow su fekkee ne gaal yaa ngi registar net bi ah, dem di registre di dappee beneen net yaa ngi registar ah, naka point five nga di registar point ten understand nga waaye gaal gi point net bi ah number five nga war a nappee comme maanaam yu xam nga nga dem nappee gémmiñ goo xam ne is ten xam nga size ten understand xam nga ne da ngaa jël da ngaa moo daan yow li nga registar understand nga soo da gis ne yow sa boppa doo jàppee jën yooyu noonu Jenny Jenny shawi bari ci te jeni mag nga buga on a tant jën yu sew di mujjé ray dang len di sani obviously bëggo ci bëgguloo lo len so nga la dafa yaa wow, géej gi on a tant waaw lo yëpp mu ngi ci dañu ñu fi indi sen gal registre ko ñu jox leen laysin ñoo xam ñaata la fay fi dañ dan téye gal sax xam nga comme yenen dëkk kay di nga ñu gal gi gal ko nga xam fayin bi on a tant ndaw li ñoo defa nguur gi mu ngi transparent sakatuma lu forina di def fi dafa wara transpirer transparent on a gaal daf daan fay fii su gaal fayee fii yow doo xam li gaal gi fay waaye doo xam li gaal gi fay suñ jàppee gaal gi doo gaal gi du ñëw ci news bi maa ngi laa wax ci former government bi de gaal gi du ñëw ci news bi ba léegi sax loolu laa bëgg sax loolu génn gaal guñ fi jàpp ngay sàcca jën wala ngay nappa suñ trésorier bi on a tànga buñ la yëwee dañ la war a fine ni mu di tani def ñu announce ko ñëpp xam ne gaal gi mu transparent ñëpp xam ne gaal gi lii la fi defoon lii lañ ko comme suñ téye nit rek niñ laa fayne xam nga li ma ne mu transparent ak Gambian bi pour ñu understand understand nga waaye non da ngaa gis ne yow lu gars yi def ci géej gi gars yi duñ ko ñoom duñ ci duñ ci def dara inspecteur si wala cruise yi no business on that. ba pare du amuñ doole bi pour wax ko. loolu mun naa am loolu mu naa am set yow maawut loolu dañ la leen pour ah, dañ la ne la demal nga liggéey loo fa gis bul wax liggéey lañ la fa santa understand nga li ma ne soo gisee ci yaa suñ géej gi sa doo wax understand nga li ma ne soo da ngaa seet kala yónni moom moo laa diktal moo laa jox voice ne nii laa nii laa nga liggéey lee te voice boobu moom ngaa moom ngaa moom ngaa wéyee waa inspecteur yi nag fisheries ñoo leen dee am ñoo leen dee ñoo leen ñoom fisheries ñoo leen dee jox ne leen comme doo leen demee daal lii ngeen leen leen fa yóbbu lii leen fa yóbbu loo leen fa gis tamit waru leen a wax dara non duñ dugg inspecteur si sax duñ dugg inspecteur si waaye fisheries ñoo wax ne ah man maa la yóbbu pour nga liggéey waaye liggéey lu raaytut sa ñoom dañoo set eh, them out understand maa la ne defal ma lii soo nii laa bëgg nga defaree ko leneen luñ def foofu sax yoon nekku ci yow mu naa a bu boobaa doo mu naa dara understand nga yow da ngaa def li nga xam ne ki la fa yóbbu li la li ko neex rek ngaa def understand nga waaye léegi-léegi néew bi bi ñoo dee dem jàppaleen gis different mbaal ci kaw dek bi néew bi dañ leen dee indi nañ fi several gaal yuñ fii safara gaal yi ñu fi téye ne bi indi nañ leen waaw dañ leen dee bàyyi doo xam naka lañ leen bàyyee loolu yëpp Gambien si awiyaawu ñu xam nga suñ géej gi dafa am ñoo xam ne ñu ngi awiyaaw what is going on waaye majorité bi yëpp awiyaawuñ what is going on ñun si ñun si fiyaare lañ ñun dañ dem géej Europe dem géej afrika waa dem naa ci géej gi nii sax waaw maa ngi doon bugg a wax ak gars yi waaye it could be another time understand am na ñu ma ci inji gars la ma anytime boo ñëw rek bro you are welcome AGS is a different organisation Gambia Sailors Association nga AGS ñun I was there ñun ñoo def the last congress of AGS gars yi nekk ci uh, office bi fi mu nekk am man maay among among the first people or among them ñi nga xam ñoo fight pour ñu am congress ba gars yi toog fa ba saa si yàlla tey yàgg naa ci affaire yi géej gi understand nga waaw uh, liimaan AG, Besasialate AGS. Namalan by Ray because of I have other things to do. Understand? Wow. Why love Monday how to make them a ham? Understand? Wow. Nga nyom different association la because Gambia Sailors Association bele physics la. Understand ngale mani. Wa Gambia Sailors Association lang nyom dañu employ because gal gu ñoo fi ñom dañ de dañ de gal gi amna right pour jël certaine cruise registre da ngaa registre fii ba pare da ngaa am cruise yoo xam ne da nga leen di employé because yaa ngi liggéey suñu dëkk bi il faut nga am Gambien yooyu employé understand nga li ni Gambien si nga employé noonu seen ñun suñ suñ suñ doole la pour nga employé leen because yaa ngi liggéey suñ géej waaw soo you know soo leen employé ñooñu buñ demee dañoo dem behalf of AGS demuñ behalf of fisheries fisheries ñoom inspecteur rek lañ dee yónni loolu waroon am la loolu waroon am su amoon dafaa neex AGS ak fisheries ñu ñu collaborate su ko defee fisheries mun a dooleel AGS eji es tamit mun a ànda fi si fi si dimbale leen understand nga waaye nguur gi dafa war a taxaw tamit pour dimbale li nga xam ne dooleel fisheries ñu gën a dooleel leen seen liggéey because Taman Road seen liggéey daal dafa des because doo gis nit ku yaa sa sa géej sa alel understand nga yaa ngi yaa ngay liggéey nga gis nit ku yaa sa alel ah nga noppi eji es lool li fa xew mooy li maa ma mun a mooy xam nga dañ dee ñoom dañ am school boo xam ne school bi sax ñu ngi ko bëgg a extend ñu ngi bëgg ak gi dimbali leen pour ñu defar school bi pour ak yooyu waaye ah, demuñ ñoom ñoo def benn classe classe boo xam ne amount of students si fa nekk sax bari wuñ bari nañ waaye duñ fa xëcc loolu loolu warut nga éeg gaal su ko defee keneen war a éeg ko keneen kii éegoon éegaat ci kaw kooku noonu ah, loolu mun na mun naa mun naa am waaye ñi ko daan def looloo ta ñu génnee leen fa ñi ko daan def génne nañ fa ki fa nekk right now li maa gis ne kooku loolu amut ki fa nekk moo indi moo indi si leebul bi mu nekk le fine leebul leebul bu baax understand nga li ma nii seeloo si ku ci nekk am nga am nga fayil bu njëkk ba ña fa nekkoon seeloo si kenn amul fayil doo amee ci géej gi problème sax amuloo amuloo benn amuloo lu la dimbale amuloo dara loo xam ne lii mun na laa help o dara loo xam ne mun naa nekk sukkandiku sa gannaaw understand nga waaye right naaw ñi fa nekk dañ op to date office bi ba pare am fayil seeloo bu nekk am fayil problème boo am rek dañ ci dee taxaw xanaa saa nga li waaw waaye eeg gaal bi keneen eegaat sax loolu stop na soo eegee ba pare wàcce da ngaa war a jox sa morom ki eegutoon mu loolu mu ngi daan am ci laas rijin bi géej gi dafa nekk place boo xam ne dafa dangereux amut banxaas soo ko ci yóbbu pour mu liggéey rek su ñëwee rek war nga koo jox yëlee fam xanaa nga waaw doo liggéey loo nit ki ci géej gu naxari googu noonu nga xam ne amut banxaas doo am fu baax sax foo tira xanaa saa nga li ma ni soo fi mu nekk nii du doy every two hours three hours ñu ee leen pour liggéey fi mu nekk nii yow soo jógee ci gaal gi ñëw obviously war nañ laa fay bi taw ñu diile la war nañ laa tey ëllëg tey ëllëg waaw loolu daan na fi am waaye loolu foog naa ne ci AGS génn na xaw ma fisheries nag waaye ci AGS génn na waaw soo ñëwee gaal immédiate li nga ñëw fekk sa xaalis sang laa xaar waaw daf daan am down payment sax waaye ko stop comme tubaab bi bëggu ku ñuul dañoo ne ok foo mën la war liggéey mu ngi war a am ah six thousand dalasi a month understand li ma ni so nañ ko fay four months yi ma war a am yëpp ci gaal gi da ngaa ceeg six thousand dalasi a month four months ñu fay la yëpp wala six months ñu fay la yëpp understand because loolu ñu stop ko nag because am na ñoo ne dañ ci daan bugg a profité duñ daan nangoo dem géej te dañ bugg a gambien si jànga géej gi jànga fish jànga fishing understand nga youth si nga xam ne artisanal fishing bi war na leen wala fishing trawler war na leen comme Sénégal yi nga xam nga li ko loolu tax ñu pour down payment bi. waa li ma am pour yóbbante physique département nañ seetaat suñ géej gi bu baax jàppa ci. because géej gi suñ ressources la géej gi suñ yaakaar la géej gi mooy suñ diamond mooy suñ góol ganaaw gerte gi. xanaa tànga ñun géej gi ku ne amul xaalis wawloo dëgga géej gi ñun war nañoo waroon a am fi ay ice plan am fi itrolas employ boy ñun gaal yi lañ fee ñëw rek pour register man ba fi ba ma ba ma amee ba ma amee visite ba léegi registration def. fii ñu taxaw nii may wax ak yow nii Ajay Simanko ñoo fi nekkoon sii gol benn Ghanaian ku fi indi def fi fishing department gisal Saaro rek Saaro yaa ngi faa gis another new fishing ah, fishing company ah ñooñu they are not Gambian dañ ne dañ registré si fi understand nga li pour liggéey fii tamit noonu la fi Ghanaian bi Ghanaian bi dafay léegi léegi make lot of mu dem waaye noonu ñun fi mu nekk ay side time pour ñu jël suñu géej gi ñu exploit ko am égal boo yaa fi di dem géej géej tang ngi first step tef ak bo trola i eh, eh, eh, boys boys am xam ne xam nañ trola mun nañu daw mun nañu dem ci trola yi ah ñu fi dañu tok thousands of boys ñu ngi tok amuñ liggey su ñaar demé ci ñaari gal ñetti gal ci la em jihad ñu ñu wàcca ñu amaat yenen gal understand nga lima am dal pour wax finally moy daal lañu gars yi dimbale ci géej géej gi daal li Gambia la géej gi daal ressources yi Gambia la géej gi daal moo help tamit boy ci booy si nekk AGS rek ñoo ëppa any department boo mun a xalaat biir Gambia fii si liggéey total people bi nekk AGS anastan li ma ni ñoo ëppa any department fii even port set employment bi sax su ma fenut AGS ñoo ñoo ëppa ñoo ëppa li ma mun a mooy inspecteur si nga xam ñooy dem géej te ñuy gis li Chinese yi def waxuñ ko soo loolu man ma ci ñaaw njorta